kon nag ñu ngi ñaan sëñ bi ñu ngi ñaan sëñ bi sëñ bi yàgg bi te wér lool sëñ Mame Ndiaye dafa wax ne njaboot ga fa nekk di sax njaboot tam nekk ca bopp ba mu ngi leen sant bu leen gërëm ndax bépp ndigal loo xam ne bàyyikoo moo xam muy yi wala tabaski ak lu maa doon lu mu leen wax ñoo ñoo ko ciy jiitu loolu nag yombul ci mbooloo te mbooloo mën nañu wax bari na bëriwut waaye seen pas-pas rëy na lool ndax seen xol bépp liggéey Serigne Fall moo ci ne mën nañu tudd ñëpp te kuñ tudd mën na jëwriñ waaye ñoom ñëpp àndandoo bokk moom liggéey bi waaye dañoo xam ne kii liggéeyal moom am na fay muy muy Cheikh Ibrahima Fall te yow muy toog te yaa fi Cheikh Ibrahima Fall kon nag ñoo ngi sàkk nga ñaanal leen nañ am wér nañ am tawfeex nañ am xéewal ba yéen ji ñu am ci liggéey Cheikh Ibrahima Fall suñu borom def ko ndax wax buñ seen waxtu ñu fi ñëwee ay milliards lañ fi indi ndax xam xam nañu nopp loo benn yoon te yéen a jëpp mooy liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall te lan leen waxoon rek ndax ne woon nga leen kër fii nga leen toog nga leen kër sëñ Touba gi nga xamante képp ku ci fekk mu am daa ko bokk yow te neew nga loolu ñor la waxtu da ngeen leen koy soññ ñu ciy góorgóorlu bu baax kon nag ñoo ngi sant bu baax di la ñaan nga yàgg fi tamit lool addi ji mi ngi nii mu toll ci ñaari million ak ñaar fukki junni di sàkku ñu xi ñu xeeb ko lool nag bëgg sëñ bi fulal leen ko ba niñ ci ba niñ bëgg liggéey Serigne Fall ñu def ko ñoo ngi tudd nag kàddu yi ndax bu toogee ci kanam sëriñ bi waruñoo wax waaye yéen yéen rek tax ñuy yëkkati suñuy kàddu ko wax ndax ñoom ñi waxtu wu ne ñu jógee fii dem ba ci bisub sëñ Tuubaa bi nga xam ne amoon na fi Côte d'Ivoire nga yebal ñu fii man ak seen seen daam yi dem teewal la fa bañ àggee lépp luñ mën ñoom def nañ ko ak luñ mënut ànd ko ñun ba lépp rafet ànd ak mbooloo mépp taxaw bisub Cheikh Fall la te lépp yow lañ ko defal kon nag ñu koy séenal sëriñ bi ndax sëriñ bi ñu fa yebaloon jërëjëf Fall ñu ngi tuub kàddu yi day jégalu wasalaamaaleykum waaye di ko ñaanal bu baax di Amdi Fall Moodu Mbenda xalifa sandal de Baye Fall moom laay wax naan Mbenda jaxunay ba sala pend mi des si ngaraaf ardonga maafaan waaye pël baa nga mboobeen Moodu Mbenda Fall jàmbaari carrière waaye Moodu Mbenda Fall sey noon du ñu ree di ko ñaanal sëñ Amdi Fall Moodu Mbenda naaru maam Khady Niang xalifa général de Baye Fall ma ni ko jaxu nay ba saala penda mi des si ngaraaf ardoo nga maa waaye pël baa nga mboobeen Moodu Mbenda Fall jàmbaari carrière waaye Moodu Mbenda Fall say noonu du ñu yokk liggéey liggéey sarafal ci biir réew mi ak bitim réew mi di ñaanal sa mu muy Cheikh Mahamadul Muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér waaye yàggal fi sëñ Amdi Fall Moodu de Baye Fall tey góor yëpp si gi murid yëpp si gin nañ jurit yëpp si gin nañ Sëñ Fall Modou Mbenda yokku na liggéey maam Serigne Fall ci biir réew mi ak bitim réew ndax keroog bi nga xamante ni maam Soxna Fall Mbenda sa maam ju tedd ja ñëw na ci maam Cheikh Ibrahima ni ko Modou Fall Mbenda day bu jàngiwul doomi bàyyam yëpp jàngi nañ bu jàngiwul dina gàlli maam Cheikh Ibrahima Fall ni ko ah Modou Fall Mbenda maam Soxna Fall Mbenda dara la sa xel Modou Fall Mbenda bu mu noppee ci moom àdduna yëpp dina xam ne noppi naa ci moom tey jii ku ne xam ne ni Serigne Cheikh Jëmbu Fall naar moom Jëmbu Jóob bi mu fi bàyyi ko 2021 murid yëpp takk seen laxasaay yeesalaat seen jébbal ci sëñ Amdi Fall Modou Mbend naaru maam Khady Niang ndax ku ne xam ne ni sëriñ Cheikh Modou Mbend sa mag ju baax ja naaru maam Fat Fall Bambi bi fi sa baay bu baax ba sëñ Modou Fall Mbend 1955 ca njëkkër ma jeey sëriñ Cheikh Mbend yokku liggéey sëñ Modou Fall Mbend 55 ba 86 mu jox rakkam ja sëriñ Talla Modou Mbend di dooy maam Fat Fall Bambi mu yokkaat liggéey sëñ Modou Fall Mbend 86 ba 96 mu jox tey jii sëñ Amdi Fall Modou Mbenda mu toog di xalifa ci baayam ñu dem ba deux mille 2021 nag mu toog di xalifa ci baayam di xalifa ci maamam yokk liggéeyub sëñ Modou Fall Mbenda waaye yokk liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall ma ne woon siyaare naa ko sëñ Amdi Fall du Mbenda sang bi ndax moom la yàlla takkal ndombay maam Cheikh Ibrahima Fall multi réew mi jug leen siyaare sëñ Amdi Fall Moodu Mbenda moo donn maam Cheikh Ibrahima Fall moo yor xilaafa gi wuuf rakkam yu baax yi mu am wuuf njaba gi leen sàmmal sëñ Moodu Fall Mbenda sëñ Amdi Fall Moodu Mbenda yàlla na dund téeméeri at te teg ci fanweer ci at yu teg weer di liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall fédération maam Cheikh Ibrahima Fall bi nga xamante ni Touba Côte d'Ivoire la ne sunu bàyyi Serigne Ba Ndiaye Ndiaye di taalibi sëñ Abdou Ndakaaru di jàmbaar lool ànd ak mboolem sunu bàyyi ya fa ne Baye Amdi Fall sëñ Modou Diouf Xelkom sëñ Massamba Seck sëñ Demba fay Baye Jibi Diouf Lambaye ak mbooleem sunu baay yi fi teew sëñ Assane géey ak mbooleem jàmbaar yi fi teew yëpp rek ànd ak Serigne Djili Fall so doom moom sëñ Mamadou Abdoulahi Fall Ndar ñi ngi yeesal seen kóllëre ñi ngi yeesal seen njébbal di ñaan sañam di Amdi moo du Mbenn xalif général des Baye faal yal na fi yàgg lool ànd ak wér donc bii di yëkkati kàddu di xaadim Madina dëkk Mbour di taalibe Serigne Mbacke Madina ndax ku ne xam na ni keroog bi liggéey bi di agsi Daaru Xuddoos dara fekk sëñ Abdourahmane jël sëñ Amdi Fall Modou Mbenda dénk ki nga xamante ni mooy Cheikh Mouhamadoul Mountakha kon ñu ngi ñaanal bu baax sëñ Abdourahmane suñu jàmbaar jooju suñu borom yàggal ko waaye di ko ñaanal sëriñ Cheikh Mbacke Madina ak mboolem njabootu Cheikh Moussa Wague yëpp allahumma salli wa sallim wa barik jërë ngeen jëf di doom ci sëriñ bi nekk nit ñoo xam ne sëriñ bi da ko boole ak yéen ñu jëm ci sëñ jiili mii ndax bi sëriñ bi toogee rek bi mu dikkee sëriñ bi da ko yeesalaat ndigal li ne lu jëm bitim réew ci Afrique muy Mali Côte d'Ivoire yëpp nañ dem soññaat taalibe yi ci liggéey bii nga xam téyloo moom la sëriñ bi di leeral nee na nee na sëñ Modou Mbenda Cheikh Rafal da koo loolu li tax mu man ko taalibe yi rek la moo tax ñu leen di jaajëfal loolu la sëriñ bi doon leeral boppam loola nag li ko waral lépp mooy seen mu ngeen boole seen ñax boole seen xalaat boole seen doole mu lew leen doom ngeen yëkkati ko bëgg ndamul seeraayam faal ngeen yëkkati ko di ko indi ci ñu am ñu rafet loolu sëriñ bi xolam seet na ci baax a baax a baax leen di sant bu leen ñaan ndax seen ndam mooy nanam bu ngeen nekkoon ni milliardaire lu sëñ Tuubaa bëgg sooba yàlla bu gersoo gis ko ñu saafarawu kon yàlla na yàlla defal leen ay mucc defal leen gudd fan defal leen ay xéewal ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall ndax dëkk bii ngeen nekk de moom mii bi mu doonee ab taalibe doonagul xalifab sëñ Modou Fall Mbenda fa la nekkoon doon jaayante di ñaq lu mu lañuy da da koy wax ndax foofa la amee li ñuy wax brevet noonu moom brevet la ko daan wax waaw li dafa liggéey dafa daan dooleem lu mu indi àddiya foofu la ko daan defee kon dëkk booba lu mu xam la lu mu miin la kon su ngeen dikkee tey fii ci moom tey mu doon fi maam Cheikh Ibrahima Fall ngeen xam ne liggéey rek mooy jariñe liggéey jaamu yàlla rek la sëriñ bi santaane li waral tey mu toog fii di dajale moom Cheikh Fall ko fi teg te Cheikh Ibrahima moo waxoon ne toog ci séesam bi boo ne mu mënal man man boo mënul mënal la kon loolu moo waral lii rek waaye jëmm la joo xam ne ku daan daan dooleem la ngir ngir jekku addiye te loolu moo nekk ci yéen kon xam na di ci biir bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm ca dëkk ba ngeen nekk ndax nit nekk foo foo foo dëkkul daa metti waaye mu ngi leen fay ñaanal jàmm di leen fa ñaanal ay xéewal ba ngeen jekku mën a dellusiwaat ci réew mi toog am fi xéewal yoo xam ne du ngeen ko wuti feneen ci barke Sëñ Tuubaa ak maam li muy digle waxtu wu ne nag mooy ak booloo booloo gi moom da ko bëgg ndax bi mu toogee rek eh, ñi doonul fédération sax dafa waxoon ne nañu nañu dem dox fexe ñu def ay fédération confédération sax wax na ko fédération yi gën di boole ci waaw ci dëkk yi ak Afrique yëpp loolu lépp lu mu ci jublu mooy ñu gën a boolante xol yi ndax ay doomu aadama bu ñu rek amante njariñ ku ne eh, cëggu bësi la rek fu mu takk rek am lu fa ruus kon loolu sëriñ bi di santaane waxtu ne lu waaye yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom ci ak booloo nag ñu soññante ji bu baax a baax a baax booloo gi ne li ko sëriñ bi bëggee lu dajale alal rek lam lam ko bëggee mooy boole xol yi di jàppalante te sëriñ bi rek tax loolu la sëriñ bi di santaane waxtu wu ne ñuy dénkaane waat nag njabootam yi nga xam ne ñoom ñoo fi jógee di wut si di wut si foofa lu ñu dajale lu ñu indi addiya mu ngi leen koy dénkaat bu baax a baax a baax ñu ngi leen koy dénkaat bu baax di sant nag jëwriñ yi ci seen pas ak seen yéene jëf ji nga xam ne nii ñu ngi taxaw waxtu wu ne di ko soññ murit loola ak jot la ak yitte te dañuy bàyyi seen yëpp di ko def loolu sëriñ baa ngi leen ci sant bu baax a baax ndax jiite yomb yàlla na yàlla kàttanal la te la ndax bu nee la yaa jiite yaa fa nekkal sëriñ bi dafa nekkal sëriñ bi nag mat mat gu mat sëkk daa war a nekk ci moom te loolu la koy la koy def loolu sëriñ sëriñ bi ñoo ngi lay jaare Fall di jégluwaat baax kaddu yi nga xam dañ ko toftal ci kaddu sëriñ bi ñu ngi koy lu baax Fall yaaram waaw ñoo ngi ñoo ngi siyaare bu baax di ñaanal sëriñ am di mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci barke maam Cheikh Ibra Fall ba lim yéene liggéey Cheikh Ibra Fall mu def lépp dañu ànd ko moom ci barki maam Cheikh Ibra Fall euh, noo ngi siyaare baax sëriñ Mandiaye mi nga xam ne mooy jëruñu fédération maam Cheikh Ibra Fall di siyaare sëriñ Jili Fall mi nga xam ne waajuru moo ko boole ñun mu topp liggéey maamam bi saa su nekk bu duggee Touba Côte d'Ivoire wër Côte d'Ivoire gépp ngir bëgg Baye Fall yi àndandoo liggéey bi ba am ci ndam yu baree bari kon yàlla na gën a yàgg ci barke Cheikh Ibra ñoo ngi sant bu baax suñu kilifa yi ak suñu waajur yi ñu àndal muy sëriñ Jibi Diouf mii di jëwriñu sëriñ Thier Diouf Lambaye ak sëriñ Mamour Tall mii di jëwriñu ko ak ak sëriñ Falilou ñoo ngi leen siyaar di siyaar di sëriñ Ousmane Niang suñu jëwriñ ñoo ngi koy siyaar di siyaar soxna maam Biége mii nga xam ne jàmbaar lañu lool ci liggéey Cheikh Fall bi nga xam ne soxna yi fu fekkoon liggéey Cheikh bi rek yokk nañ ci ba suñu xol seddal guy kon sëriñ bi ñoo ngi sàkku ñaan ñëpp ñoo ngi siyaar bu baax sëriñ Assane yi mii jóge Touba mbuur ñoo ngi koy siyaar di siyaar sëriñ Mbaye Ndaw moom sëtë Baye Cheikh Ndaw di doomi Serigne Ablaye Ndaw di jaare Serigne Khadim Madina miit ñoo ngi koy jaare noo ngi jaare bu baax kilifa yi nga xam ne ñoom lay àndal liggéey bi Serigne Youssou Gueye Touba Yamou Sukuro di jàmbaar lool Fall Ndiaga ci liggéey bi ndax àndandoo googu Serigne bi wax ñoom bañ ko yiggéey dañoo ànd ak ñun ci wàllu wépp rek muy ànd ak ñun liggéey bi ngir bëgg leen ndam muy ngi tamal Cheikh Rahma Fall kon Fall waa Touba gañuwaay it saa su nekk bu dul tollee ci liggéey bii mu ci yi ci koor gi ak ci màggal gi lépp rek dinañ ci def lañ mën ak luñ mënut kon Fall ñu ngi lay yëgal ne euh, yéene ji nga am ci waa Kër Cheikh Fall gépp booloo ñoo ngi ciy sant bu baax yal na ko suñu borom gën a dëgëral ci barke Cheikh Fall te Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal it moo gàttanduñu ak taw xam ci barkeb sëriñ bi bu leen yéene liggéey sëriñ bi lépp rek suñu borom defal ñu ko kon ñoo ngi jéggul kàddu yi bu baax Fall yaaram di la ñaanal nga gën fee yàgg ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullah siraajun kafaanallaahu dawaaman bi nuurihi dalaalan wa tuxyaaran wa xaaran bil millati wa ahla bihi diinan xanifan xiwaamahu maam Cheikh Ibra mooy borom sujudun wa tawaidun wa zikru li tawbati ñi ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàggaat lool ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax euh, mbend jaxunay ba sala penda mi des si ngaraaf ñu gën koo xam ci si ñam di fall Modou mbenda naaru maam Khady Niang euh, xalifa sénal de Baye Fall yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér yéen a ngi fii ci euh, pàkkub maam Cheikh Ibrahima Fall ci Baye Fall gi buñ tollee ci waxtu wi xel lépp dem ci muy fédération Mame Cheikh Ibra Fall euh, Touba Côte bi nga xamante ni sunu baay Mandiaye Ndiaye moo ko jiite ànd ak mbooleem euh, jëwrin euh, yafane jébal nañ sëriñ bi addee ji mu toll ci ñaari million ak ñaar fukki junni ñi ngi ñaan yàlla na sunu borom yokk ko ci barkeb sëñ Touba doole yi maam Cheikh Ibrahima Fall ba mu dem ci ay milliards ndax jox nga addiyey gëléem Youssouf Ngurdu Safi Kom soldat sa yaa joxe sa doom waaye Falilou Fall am na texe ñi ngi feggoog mboolem eh, jëwri nii sunu baay Mandiaye Ndiaye Serigne Massamba Seck moom sëñ Mourou Aminta Serigne Ousmane Niang ak mboolem sunu kilifa yi nga xamante ni ñu ngi fi Baye Amdi Fall sëñ Assane Gueye Baye Djibi Diouf Lambaye waaye feggoog eh, njabootuk eh, maam Cheikh Ibrahima Fall gi Serigne Djili Fall moom sëñ Mourou Abdoulahi Fall Ndar Serigne Mortala Fall moom Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng moom Cheikh Mouhamadul euh, Moustapha Fall Serigne Mbay Ndaw ak mbooleem jëwrin yi fi teew yëpp rek maam biige yaay Fall teewal fi mbooleem yaay Fall yu Côte d'Ivoire yëpp rek dañuy jox dañuy jox euh, jëwrin Massamba Seck mu jox ki nga xamante ni mooy jëwrin yu Gueye teewal fi waayaamu sukuru ak mbooleem jëwrin yi nga xamante ni euh, teew nañ fi incha allahu rabbi fii ci pencum sëriñ Amdi Fall Modou mbend ci Baye Fall gi xalifa sanal de Baye Fall siyaar bi nga xamante ni fédération Mame Cheikh Ibra Touba Côte d'Ivoire at mu ne ñu jébbal ki fi nekkal Cheikh Rafal bi ku ne xam na ni dem na ci ay at yu bari ñi ngi ñaan yàlla na doon téeméeri at ci barkeb Sëriñ Tuubaa euh, doole yi euh, maam Cheikh Ibrahima Fall euh, sëriñ ma sàmba wa rahmatullah sëriñ Xaadim ñoo ngi lay siyaare bu baax di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa noo ngi siyaare bu baax bokki taalibe bi yëpp di ñaanal sëriñ Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñoo ngi ñaanal baax sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda suñu borom guddul fanam te mu ànd ak wér ci barkeeb maam Cheikh Ibrahima Fall noo ngi siyaare baax suñu mbokki taalibe yi nga xam ne ñooy door a egsi di sëriñ Alla Yaate Gaye ak sëriñ Malick Dieng ñoo ngi leen di siyaar di leen jaajëfal di leen tatagal ci siyaar bi noo ngi siyaare baax suñu sang bu tedd bi ñu àndal muy sëriñ Jili Fall moom sëriñ Modou Ablaye moom sëriñ Ablaye Fall Ndar moom maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi koy siyaare ñoo ngi lay siyaare baax Fall Ndiaga di la jaajëfal it ci liggéey bu sell bu am solo bi nga xam ne saa su nekk rek ku la gis ci Cheikh Ibra nga nekk waaye nag noonu nga war a mel ndax sa maam Ablaye Serigne Abdoulaye Fall Ndar dafa yoroon ñaari cër mu cërub Serigne Mouhamadou Falil Fall taawab Cheikh Rahima ak cër boppam kon jërëjëf Fall ñoo ngay sant bu baax sa taxawaay rafet na saa boo duggee Touba de waar xeeboo kenn kenn du la gis mosoo ne li kenn jox ma nangam foo toll rek liggéeyub Cheikh Fall bi nga bu mu dox kon yàlla na Cheikh du gën ci barkeb Cheikh Rahima Fall ñoo ngi siyaare bu baax it mi nga xam ne mooy jëruñu maam Cheikh Ibrahima Fall doon jàmbaar loolu ci liggéey bi doon gaynde goo xam ne ku ànd ak moom liggéey bi boo tayloon di nga sawar ndax lu muy laaj moo ko njëkk a génne waaye nag doon ko bëgg Cheikh Ibrahima Fall doon ko bëgg ndëgam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne képp koo xam ne bëgg nga Cheikh rek boo ànd ak moom di nga sawar kon Serigne Média ñu ngi lay ñaanal baax suñu borom gën a woyofal yan bi te dolli xéewal yi barkeb Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi santaat bu baax suñu borom mi nga xam ne moo ñu fe fekkeloo woon daaw fekkelowaat ñu fereen te yor yi te diñu dimbali sàmma ñu taalu bi ñoo ngi sant yàlla bu baax ñoo ngi sant sëriñ Ousmane Niang sunu jëwriñ doon jàmbar ci liggéey Cheikh Fall di sant sunu waajur sëriñ Amdi Modou saa Fall yoo doon liggéey bi Touba Côte d'Ivoire dañu soññu jiite ñu ko ba dellu siwaat fii ci Sénégal ànd ko ak ñun de sante suñu jëwriñ ju mag doon jëwriñu maam Cheikh Fall muy sëriñ Modou Diouf moom sëriñ Dame Saliou daa joxe ngant moo tax isu ci liggéey bi waaye ñëpp xam nañ ne jàmbaar ci liggéey bi ndax ba mu jógee Touba Côte d'Ivoire ba léegi taxul mu fet fejji laxasaayam daa gën a fejji laxasaayam ci liggéey bi lu ñuy laaj mu joxe ko bu àddu yi ju ñëw mu li ko sëriñ bi kon ñoo ngi sant bu baax a baax a baax ñoo ngi sant bu baax waa Touba Yamoussoukro ñoo ngi leen di sant bu baax di sëriñ Youssou mi nga xam ne moo leen fi nekkal ñoo ngi sant waa Touba Gañwaa ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax ñoo ngi sant bu suñu mbokk yi nga xam ne dañu ànd ak ñoom liggéey sëriñ Touba bi ñu doon jàmbaar lool te bàyyiwuñu liggéey Cheikh Rafal bi ndax bu ne woon Baye Fall yi rek ñoo yor liggéey bi kon mën naa di si ñun waaye ñoo ngi sant cant goo xam ne mënut am ab ab sëriñ Mamoun Tall jëwriñu Cheikh Fadal di Baye Fall bi Cheikh Fadal ñoo koy sant muy bàyyi njàmbaar yoo xam ne ci liggéey sëriñ Tuubaa bi xamewul kër Cheikh Ibra wala kër sëriñ Fallu wala kër sëriñ Modou Mamour fenn fu nekk rek sëriñ Mamour jàpp liggéey bi kon sëriñ Mamour say tànk ñu ngi ciy sant tànk yi fi taxawal sëriñ Baara muy jëruñu sëriñ Tuubaa Tuubaa Jaame ñu ngi koy sant di ko gërëm ñoo ngi sant bu baax it suñu bokki taalibe yi nga xam ne dañoo jóge Tuubaa Treichville ko mel ne sëriñ Baara Gueye sëriñ Malick Dieng ñu ngi koy sant te aussi liggéey bi sëriñ Allé yaate muy bàyyi Baye Fall Maam Cheikh Ibrahima Fall yi ñoo ngi sant bu baax di sant soxna maam Bigé nga xam ne muy soxna yoo xam ne bi ñuy dooru ñëw laata ñu ñëw ci liggéey bi am na fu liggéey bi tolloon waaye bi ñëwee am na fu ñu yëgal liggéey bi ñoo ngi sant suñu waajur di taalibe maam Cheikh Rahima Fall di soppeeb Cheikh Ibra di taalibe bépp di jëwriñu Serigne Thier Diouf sama maam muy Serigne Jibi Diouf ñoo ngi koy sant cant goo xam ne fépp foo xam ne Baay Faal lañu fee daje boo demee fekk Serigne Jibi Diouf muy lu mu gëm muy ku bëgg Cheikh Ibra kon Serigne Jibi ñoo ngi dong yaa ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ci taxawaay bi ndax ñun dañoo am lu du Cheikh Ibra kon bis bi képp ku ñu fi fekk rek ànd ak ñu ci liggéey Serigne Fall bi gëm nañ ne ku bëgg Cheikh Ibra nga kon ñoo ngi sant ñëpp ñi nga xam ne dañoo ñëw ak dañoo ñëwut Serigne Assane Gueye di suñu wëlëre ñu bokk liggéey bi nga jëmmi Cheikh Ibrahima Fall ñu koy sant Serigne Moustapha Mbaye mi nga xam ne kër gi nga xam ne dañoo def ci kër gi groupe boo xam ne dañu ko tuddee groupe ba Mame Cheikh Ibrahima mu doon ci jàmbaar joo xam ne bari na lu fiy jaar waaye bu doo ko nag Serigne Moustapha jombut mën na bañ a fay waaye du wétali ko ni mu wétali ko kon Serigne Moustapha ñoo ngi lay sant ci kër Serigne Cheikh Ibrahima Fall gii nga xam ne moo ñu boole ñoo ngi lay sant cant goo xam ne amut ab app ñu ngi lay sant bu baax di ñaan borom guddal soo fan ci barki maam Cheikh Ibrahima ndaxte kat wétali li nga daare Cheikh Ibrahima ndax ñun da ci am jëmm yoo xam ne Cheikh Ibrahima Fall rek mooy seen wéttal lu nu dégg ne seen nopp du ko dégg te saa su nekk rek yaa ngi fàttaliwaat Cheikh Ibrahima Fall kon jërëjëf mbay fi ñu jàppale li nga jàpp Cheikh Ibra ñu ngi lay séeréel ne la Baye Fall yëg nañ ko gis nañ ko kon barab bii nga xam ne ni moom lañ am muy ëttëb Cheikh Ibrahima ñu ngi lay sereel ne Baye Fall yëpp am nañu mbégte ci yow yal na sa borom gën a soo fan ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall ah, ñoo ngi sant ñëpp bàyyiwuñ kenn ku lim doo matal waaye na nga bëggee mu mel doo doone mel. ñun ñoo ngi bàyyi ko Yamoussoukro ñoo teewal waa Yamoussoukro ah, sëñ Ibrahima Mbengue sax noonu dana ñëw xañ na maanaam mën naa am jafe-jafe oto yi moo ba léegi waaw maanaam sëñ bokk naa ñi nga xam ne ñoo nekk Yamoussoukro sëñ Cekk Bob ak sëñ Abdoulaye Seck ak sëñ Abdoulaye ak sëñ falu sëñ Fallou Ndaw ah, ak sëñ Fallou Ndaw ñoo ñoo ñoo nekk foofu ak sëñ Mamoun Niang dama bokk ñi nga xam ne ñoo màggal si nag moo tax ma ñëw teewe teewal teewaale leen waaw leen waaw maanaam liggéeyal maam seen faram képp ku la ci woo dalaa bëgg a dimbali waaw ndax ñun ay tuut tànk lañ waaye nag wax dëgg yàlla suñuy waa suñuy waajur teg nañ ci yoon woo xamante ne bii lañ defoon ñun dañoo bëgg dañ ko bëgg a weesu waaw loolu daal lu ñu am loo xam te ni moom lañ moom lañ moom lañ ñuy wax ndax Seex Ibra moom danay jëf rek waaw jëf moo am jëf moo am solo jëf moo ba tax na ñun waa Yaa Moussoukha dégg bañ déggee ni sëñ Mandiaye ne léegi euh, sëñ ji danañ bokk ci fédération bi ndax comme yaa euh, Côte d'Ivoire dafa yaatu du maanaam pour teew euh, pour teew ci mboolem daayira du yomb léegi ñu nañ boole mbooloo mépp mu nekk benn saa bu màggal gi jub see ñu boole addee ji mu nekk benn amalum ndax sëñ bi pour siyaare ko nit ñi dañuy bari te ñëpp duñ mën a teewandoo waaw loolu loolu tax ñu ne nañ ko boole bu ko fekkee kenn ku nekk uh, ànd ci uh, buñ demee ba toll ci war uh, màggal kenn ku nekk am ñaar ñu yab ñaar ñoo xam ne màggal seen wala ñett ñu ñëw daje ci dayre bi ñu jébal ñu jébalee addee ji waaw loolu daa xam ne moo mooy nekk loo xamante ne bi moo gën a yomb kenn ku nekk bëgg dem jébale sa dayre bopp waaw yoon woowu daal lañ lañ aw waaw loolu yoon woo daal la ñu aw wax dëgg yàlla bu ñu ko suñu mën jaay waxee tamit amuñ ci lenn lu werante dañ ne daal loolu moom liggéey Baye Fall moom jëf-jëf jël rek la waaw lu waay jëf sa bopp mbokki jullit di mbokki taalib yi waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi leen di siyaare di am mbégte lool ci siyaar bi nga xam ne siyaare nañ ko di ci jiital sëriñ Jili Fall ñi nga xam ne mooy suñ sëriñ di suñ coloré ah, di ko siyaar di ko sant itam ci lii nga xam ne sëriñ bi sedd na ko tam doxe ko ko ndax bi mu ñëwee Abidjan fédération bi ay yaamu sukkuroo gañuwaay yëpp ci lañ doxee participer daanaka ci groupe bi te ñu doxin moom bëggoon ñu ngi koy dox ndax sëñ Yuusu gi mii ak sëñ ñang ma nekk gañuwaa ak sëñ Ñas ñoom ñëpp ñi ngi ci fédération bi di ci dox nañ ci war a doxee ah mbooloo mi nag ñoo ngi leen di sant cant goo xam ne nii am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem ndax njiit kenn ku ci nekk mën nga njiit kenn ku ci nekk mën nga njiit kon maa ngi leen man mii maa leen war a sant ndax kay leen nu ànd liggéey la Cheikh Ibra loolu moom wax dëgg yàlla kenn amut payam ñoo ngi siyaare bu baax nag mbooloo mi siyaare sëñ Mor Talla mi siyaare sëñ Assane Gueye sëñ eh, Mbay Ndaw bàyyiwuñ kenn bay Moustapha Mbay mi nga xam ne moom spécial cant da koo am ndax Baye Moustapha day jënd crédit te du laaj kenn crédit di waxtaan ci maam Cheikh Fall di nu daggi te du laaj kenn ñaari dërëm kooku kenn amut payam ñoo ngi lay siyaare bu baax di siyaare mboolem ku nekk ci daay euh, fédération maam Cheikh Fall bii di siyaar spécial itam nag Serigne Assane Gueye ak Serigne Khadim Madina Sey mii nga xam ne foo ko fekk. muy waaxu na la woon na ci ndigalal yoonu murid la nekk ràññeluwut Baay Faal gi ràññe ràññeluwut Baay Faal gi ràññeluwut fenn lu muy dox lu nekk foo ko dégg kàddoom na la wér ne ndigal jip mu di ca dox kon ñi ngi leen di gërëm di leen sant di am mbégte ci yéen lool di leen jottali nuyoo ak kaddu yu jóge ci suñu jëwriñ sëriñ Bara Fall mi nga xam ne sii moo nekkal sëriñ mu fee ci Touba Adjamé ak kàddu yu sëriñ ma gumba Thiam mi nga xam ne si ne eh, moo fa nekkal xalifa général kullu murit fee ca Côte te aw nekkinam ab taxawaayam rafet lool wax dëgg yàlla mënoon nañ cee bañee sànni kàddu ndax kat wax dëgg yàlla bu kilifa yi waxee li ci des lépp mat na di nuyu ki nga xam ne si moom laa dendal di sama kilifa di sama lépp muy sëriñ Ousmane Niang ba may ñëw ci dëkk ba sama nijaay boole woon ma ak moom bis boobee ma ko xamee ak bis bi ñu toog nii tey jii mosumaa gis lu soppi ko ci moom eh, nu kilifa di taxawoo kem yilif rek taxawoo noonu ko ci lépp di sant bu baax ci jataay bii siyaara bu baax sun way jur baay mu safaa Mbay bëgg lu baax ku ne xam na ne moom foo ko dégg ak loo ko séenee rek ci lu baax rek la nekk di nuyu Baye Jibi Diouf mi nga xam ne si moo fa nekk sëriñ Aliou Diouf Lambaay tey eh, di péete waa kër Cheikh Amadou Fadal Mbacké ci liggéey bi nga xam ne dañ ko ànd di ko liggéeyal sëriñ Touba wax dëgg yàlla tey jii moom sunu xol dafa sedd lool ndax lii kat kenn dafa amulu lu ko féete kaw ndax kat lépp loo xam ne si ne teg nga ci loxob maam Cheikh Ibrahima Fall moo gën a wóor ndax wóor na la Serigne Touba dana ci jot waaw te it wax dëgg yàlla nee naa leen yoonu murit lim lim lim lim lim gën a ñëpp ak lim kawee ñëpp du dara maam Cheikh Ibrahima Fall rek la waaw ndax nit ki nga xam ne si sax danga ngaa nekk ci sa kër ka ca gën a jàmbaare. Baye Fall lay tudd kon nag Baye Fall ñëpp ko bëgg kon nag ku ko yàlla jagleel war ngaa sant yàlla te gën a góor-góorlu te gën a xam ne si ne lu baax yombut te it eh, li gën a jafe mooy liggéeyal yàlla waaye Baye Fall ku ko gis ko xam ne ku ne xam ne rek moom ci liggéeyal yàlla lay nekk ndax koo xam ne si ne la nga bëgg lépp da koy da koy defal ba noppi wëlbatiku raxasu dem kookee kuy liggéeyal yàlla rek moo koy def kon nag suñu xool sedd na sant nañ bu baax Baye Mandiaye si di kontaan ci teew gii ma fi teew ci at mi di yàlla ñu koy teew ati at ko ci barkeb Cheikh Ibra man nag maa fi teewal soxna yi nekk Côte d'Ivoire yëpp mm, ci liggéeyu maam Cheikh Rafal bi nga xam ni kenn mënu leen ci heure bu ñu leen wooyee pour ñëw leen ñu liggéeyal ñu am mbégte yi laxasaayu ñëw fas yéene koo liggéey di leen ñaanal ñoom ñëpp lépp lu ñu fi ñaan yal nañ ko bokk ci darajey Cheikh Ibra di sant Baye Mandiaye mi nga xam ne nag mooy suñu jëwriñ ji ndax Baye Mandiaye toujours mi ngi ñuy soññu suba ngoon man dama koy sonal lu ma kiiree ni ko Baye Mandiaye ñëwal te du musa tàyyi ndax ku la naan ñëwal ngeen ñu àndandoo liggéeyal sëñ bi defe naa ni amoo fayam di nuyu nag jëwriñ yi nekk euh, Côte d'Ivoire yëpp soxna Ndey Fall ñu ngi koy nuyu abooba di ko wax ni na wér ak jàmm salaam ndax soj maa ko tënk moo tax ñëwul di nuyu waa ña nekk abooba waa Treichville sama yaay Maguette Fall ñoo ngi koy ziar di nuyu di fi teewal oti soxna Yacine mbay soxna ay débee bàyyiwuma kenn bu ma limee damay juum di wax ne nag ñu bëgg rek ngeen ñaanal ñu ñun ñëpp ba ñu mën a gën a laxasaayu di liggéeyal sëñ bi ndax kat amuñu ko dul moom te yéen ñi yéen góor ñi yéenay suñu wéeruwaay ñuy ñaan yàlla nag ñu teew koy ati at te tal ko ak wér ak wérle ak mucc ak muccule yàlla doxal njaay meeg yëpp ba ñu mën di dajale àddiya jërë ngeen jëf. di jaare mbokki taalibe yi fi teew yëpp waaye di jaare sunu kilifa yi buñ ci tuddee sëñ Jili Fall ak sëñ Taala day matali sëkk ñu ngi leen di jaare jaar boo xam ne nii am na wàccuwaay lool ci maam Cheikh ndax ñoo fi toogal maam Cheikh Ibrahima Fall. waaye di jaare kilifa gi nga xam ne mooy sëñ Ma Ndiaye Ndiaye te bis bu yàlla sàkk ma koy ñaanal yéen bi woyof ndax dafa wax ne jiite ku ne mën na ko waaye dama ne jiite ku ne mënu ko ndax Cheikh Fall dafa am lum ci wax jiitu nag ku ne mën na ko jiitu ak jiite bokkut maam Cheikh Fall nee na bala ngaa mën a jiite dangay raw gaa yi taxaw nekk leen xam sikku ya maandu ca di leen jariñ te dew leen jariñoo ki la jox junni ak ki la laaj junni nga yamal ko sa xol képp kon jiite yombut foofa nag nga nekk moo tax may ñaanal ña la sa saa su ne yéen bi oyof ak ñi ngi ko àndal ku mel ni sëñ Ousmane Niang ku mel ni sëñ Demba fay ku sëñ ku mel ni seen porte parole macha allah liggéey bi rafet na ñooñ ñëpp ci yéen bi lan bokk waaye ñoo ngi lay ñaan sëñ Mandiaye yàlla na yéen bi oyof te jiitee xam ne yombut waaye nag bu la teeñee téeñalee rek gàttandu la la nga ca bëgg da nga ko man te sa yéene sa yéene ak sa liggéey yëpp mooy nga àggale ko fa ko sëriñ Modou Diouf bàyyee woon teg ko sob loxo nga yëkkati ko foofu passé foofa ndax sëriñ bi kat yoonam amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am boo doxee jëm ci rek mu gàttandu la daana wax ne nit du def lu mu mënut lu du wax ne lu man laay def nee na ku def loo man ñu bàyyee laak la nga man da ngay def loo mënut sëñ bi gàttandu la dangay gis léeg-léeg moo xam ne dafa yenu lu diis dangay gaaw gàttandu ko jël bagage indi ko kon noonu la yàlla mel buñ def luñ mënut nan gën góor góorlu yaa dégg ni ko sëñ bi waxee léegi cig booloo cig ànd cig nekk benn loolu la sëriñ bi bëgg te it ñuy jéem bis bu yàlla sàkk luñ mënut ndax kuy jéem loo man sëñ bi dalay bàyyi ci li nga man kon nan gën a góorlu ci lii nga xam ne mooy buum gi nga xam ne moom la ñu seerafaal bàyyee muy kurus gi day wax ne bu ngeen di wérd ba kurus gi dagg ba per saaw nee na bu leen topp per ya na ngeen mooy ca buum gi leen boole woon buum ga leen boole woon mooy kan mooy sëñ Bamba jamono jii moo taxoon muy wax kenn ku ne xam na ni per yi saaw na kenn ku ne yaa ngi woote mbooloo kenn ku ne yaa ngi xëcc daraja kenn ku ne te lépp sëñ tubaal la ko may ndax maam Cheikh Rafal daana wax àddoom njëkkuma ko sëñ Bamba waaye lu fa baax maa ko fa maa wane naka la ban xam ne naka la képp ku ma fi jël jégg nga digg wi képp ku egsi ci man yam nga ci digg wi nee na lu ma fi indi lu ngeen ko ci génne génne ci la bokk waaye lu lu lu ma fi indi ngeen génne ko ci lu ngeen ko ci boole boolewu ci la bokk kon Cheikh mooy dig wi lim ñu wan nan la ak naka la ni ñuy jariñu ci sëñ Tuubaa Cheikh Rafal ñu ko wan muy Baabu Muridina kon sëñ ji li xam naa dañuy dañuy tënk rek waaw ndax wax waxtu wi dafa euh, dafa xaw a gàtt waaw nun nag nun maam Samba Diarra moo nu moo nu joxoñ maam Cheikh Ibra waaw maam Samba Diarra moo jàkkaaroog moo jàkkaaroog maam maam Cheikh Ibra ni ko lakkal na naa naasi zahiratan sag wëlli yu njëkk a siiw yaaram bi naam faal ña nga fekkan bi kër Sëñ Tuubaa na waaye yow yaa yaa ci njëkk nekk wëlli yu waaw loolu maam Samba jaara moom moo ko wax euh, euh, euh, maam Cheikh Ibra bi maam bi maam bi maam Cheikh Sadio di indi maam Samba Diarra mu jëblu ci Sëñ Tuubaa fa fa ca ca Mbakke Kajoor fala fala fekk maam Cheikh Ibra maam Cheikh Ibra it waxaat na maam Samba Jaay ne ko dinaa la dimbali waaye dimbali na ko de ndax boo déggee maam Moussa Ka naan ndar la ko doomi jaara may leeral na bopp jaara tey waykat wa Samba Jaara Mbay moo tax dëndëm mbay bax baxi kon way way jam doon way Sëñ Tuubaa maam Cheikh Ibra daf caa participer ndax dafa dafa dafa da koo fekk makka looy looy ganaje ko euh, maam Cheikh ra jox ko am soow jox ko suukar jox ko nag ab suusal ba ko ko joxee nag loolee gën naa renforcer maam euh, euh, euh, mam mam Samba Diarra ba moo tax mu ne ko nag xat fuxta Haaruna fii juddin wa fii këramin ni ko sa tur dem na ba Cham yaaram bi naam Fall diggante Makka ak Madina nag Saam foo taxaw boo nee si maam Cheikh ba ñu la xayartu kon tënk wax ji rek ndax ñi bëgg a wax dafa dafa dafa bari waaye maam Cheikh Ibra lu yom ko sëñ bi layal ko dañu ni dañuy wax naa ndax maam Cheikh Ibra mën nañ ko layal hankay bañ a bañ bañ a mën a la yàlla inna lasina amanu wala sina haajoro wa jaahadu fi sabilillahi ulaayaka yarjuna rahmatallahi wallahu xafurun rahimun loolu du du lay inna lasina gaa ñi nga xam ne amanu dañoo gëm ah ah waaw mu ni wala sina gaa ñooñe haajoro dañoo gàddaay wa dañoo jiyaat fi sabilillahi ci yoonu yàlla ulaayika gaa ñooñe yarjuna dellu na ca ñoom rahmatallahi yërmande yàlla ndax wallaahu yàlla kat xafuurun mooy mooy borom njëggal rahimun ca mooy borom yërmande sëñ bi loolu maanaam du du du lay. li nga wax sànq ne réew ma nekk dañ faa wuti waaye daa fekkoon ñu am lu nekkoon ci ñun lu jut ñu fay dem ñu ànd ak moom dem foofa kon lu kon lu mu gàtt gàtt damay wax ne léeg nga dégg ab taalibe ca Côte d'Ivoire ñun fii liggéey moo ñu fi dem daayira andiwuñu fi waaye ñun dañoo ànd dem daayira dem Côte kon lu ñu mën def ko dañ ko boole kon rawale sunu sunu ngëm waaye rawale sunu taalibe daa bokk ci lañu war ci biir réew ma nekk rawale sa ngëm rawale sa taalibe nag weesu wut fu ñuy liggéey la maam si Ibra nga dëkk ab Baay Fall juddu ci yaru wala nga fekk si ci kon boo fa demee fu dajee da nga faa dem ndax fédération maam si Ibra Fall dama koy wax seen demba di ko wax jëwriñ ñu bari dama leen wax ne liggéey fédération bi des na lu bari ci biir réew ma ndax tey jii maanaam région bu ne ci biir Côte d'Ivoire rek waroon naa am ko teewal fii comme ni nga ne noonu la fi waaye am su ko kon liggéey boobu la fa nekk ci ay Baye Fall ci Côte d'Ivoire ah man xëyuñ ci daayira daayira Sëñ Tuubaa yi nga xam ne dañuy woy kër Sëñ Tuubaa kon liggéey la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ci war a taxawaat ba nga xam ne fan koy séentu dana fa àgg Euh, kon sëñ Jili ñu ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi nga xam ne at mu jot yaa koy taxaw fi jiite fédération bi ñu dem siyaare ji kon loolu it dañ kiy soññu taaliba yëpp buñ delloo ci réew man jóge si Massamba doxaat ci yeneen jéego yoo xam ne liggéey bi dana gën waaye nag ñu sant sëñ Mandiaye lépp lu man mi ngi koy def ci fédération ba moom it wax dëgg yàlla xàmme woo fu mu dëkk ci ajame wala Treichville wala Abobo wala yëpp ko fenn foo xam ne maam Serigne Fall ab liggéeyam àgg na fa rek sëñ Mandiaye mii moo ko fa àggale kon loolu it fàttewuñ ko ci ñu ko ci sant bu baax ca taxawaay yooyu kon daal xam naa ci gàttal dañu jëmale foofu kàddu yi. daan wax ma ko tàmbali waaye ku yeggil laa ñëwee liggéey bi mat na ñu jébbal kàddu gi Serigne Djili Fall ibnu sëñ Mouhamadou Abdoulahi. sëñ Mourou Abdoulaye mat naa sant waaye sëñ Mourou laay mat naa ñaanal na sa nasaayir samel baatin ba mel moo am doole waaye maxbu salaaga gàndeew ak a bëri doole. képp kuy wax ci Serafal am yéen nga sëñ Mourou Ablaye Fall àllarba ndax maam Serafal dañu woon sëñ yaaram bay da ngeen matul ay yaaram waaye bu ngeen matul ay yaaram lu lu ngeen wax da ngeen lu mu wax da ngeen koy bind waaye sëñ Mourou Ablaye sa baay bu mu yoxal waxtaanu Mourou Sadik sëñ Ndiaga Diop ak Baye Moustapha Seck ak mboolem eh, képp kuy wax ci Serafal ci téere boobu lay sukkandiku muy waxtaanu Mourou Sadik ndax maam Serafal Fall bi mu bindee Jésus Mouride sëñ Touba da koo tere ñu Ibrahima bul bay sawaar ba na bëgg a bayaale sans waar sëñ Mourou Ablaye bind waxtaanu Mourou Sadik te maam Serafal dana au waaye sëñ Bamba mi téere waaye dinaa fi bàyyi mag ñoo xam dina gudd fan lu ñu wax ci man dëgg la kon sëñ Mbaye kàddu yi am na solo lool eh, képp ku fi jël kàddu kàddu yi am na solo waaye di gërëm Baye Amdi Fall yàlla ñëpp am jàmm ndax keroog bi sama baay noppaloo moog sëñ Ousmane Niang mi Baye Jibi Diouf ñëw nañ mbuur ci ci turu ci turu Baye Mandiaye ñëw jaale si ma sagal ma say say biiri bokk ndax ñu bari bu ma demee Dakar ñu bari jàpp ni Dakar laa dëkk ñu bari jàpp ni Touba ñu bari jàpp ni Thiès laa dëkk waaye ni ma ri jaalu yu moo demee noonu keroog ba suñu wayjur noppaloo ci ndigalu Baye Mandiaye sëñ Ousmane Niang eh, sëriñ Jibi Diouf lambaay ak Bayam di ñu ñëw mbuur jaale ma ko ci sama biir ko sagal ma te loolu duma ko fàtte bu ngeen ma gisee bu ngeen ma gisul saa su nekk rek bu ñu fekkee ci réew mi lii ñoo koy ànd di ñaan yàlla nañu ko ànd téeméeraat ci barke sëñ Tuubaa dooley maam Cheikh kon na ñëpp teewlu alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yeneen tam bu tedd bi santaat sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul di feddali sunu jaayante ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassirou sunu borom yàggal ko fi lool te wér di ñaanal jëwrinam ji sëñ am di Fall Modou Mbenda sunu borom yàggal ko te wér te ñu yàgg di ñaanal njabootu sëñ Tuubaa ak Cheikh Fall gépp di siyaare sëriñ Mor Talla moom sëriñ Jeex Njaay Mbeng moom sëriñ Mourou Moussa Fall di siyaare sëriñ Mbay Ndaw ak sëriñ Moustapha Mbay di siyaare sëriñ Assane Gueye Mbour bu noppee nag di jël siyaare bu waa Côte d'Ivoire yëpp teg ko ci loxol sëriñ Majaay Njaay mu tegal ko ci loxol sëñ Baara jëwriñ Cheikh Mahamadul Fadel toog sëñ Mamour Tall mu jotali ko jëwriñ yëpp waaye nag di beral ab siyaar tamit waa Touba yaamu sukuro sëriñ Ibrahima Mbeng mi toog ak ñim àndal ñëpp waa gañ waa sëñ Ala Ñas sëñ ñang ma fa ne di leen jottali kàddul sëriñ bi mu waxaat ko fii léegi sunu kanam muy sant mbooloo mi di leen ñaanal ci barke maamam yéen ji ngeen fi indi te am ko yàlla nag si ci yéen maam Cheikh dafa waxoon ni ku am na ma gërëm ku ñàkk na ma xarab sëñ Tuubaa jox na ma lépp bam doy sëriñ Muntaxa waxaat ni am na luñ ñu xamoon ci maam Cheikh waaye dëgg dëgg Cheikh Ibra Cheikh Mahamadul Muntaxa moo nu ko xamal daa toog bis yëkkati addiya yónnee ki fi nekkal Cheikh Rafal ni ko na ma ko defal ci liggéeyal maam Cheikh bi sëñ Tuba mën nañ ko liggéeyal te du ko nangu waaye Cheikh Rafal lu mu liggéeyal sëñ Tuba sëñ Tuba nangu loolu Cheikh Mahamadul Muntaxa moo ko wax kon nag képp koo xam ne yaa ngi liggéeyal maam Cheikh sa xel na dal may soññeewaat ci ndigalu sëriñ bi gëj nañ ko di waar waaye sunu xol jugu fa woote yi bariwul li ko waral lañ bëgg ñun yéene nga ca ndax waxtu wañ ci nekkul woon dina dagg ay biey di ñëw di woote di ñëw waaye nag bëggug sëriñ bi mbooloo ma fa doon benn damay wax ni kuy liggéeyal sab sëriñ te nga bëgg saa jariñu ndigal lam rek ngay jëfe te waxaat na ko léegi mbooloo mu doon benn ànd di ko liggéeyal moo ko gënal kenn ku beru di ko jox ay milliards loolu la sëñam di faal naaru maam xadi ñang wax ñëpp xam nañ ni le daayira yaa ngi fii ñëw dañuy wax seen soxla ñu tàllal seen loxo ñu ñaanal leen ñëpp xam na ni at mu ne mu waxal boppam bi muy wax léegi sax am nañ ci ñeewant ñu xam ne xol lay waxe ak yéene jum am ci waa Côte d'Ivoire tey laa masa xam ni sëñam di faal Moodu Mbenda nekkoon na fa doon fa wut addiya ngir indi indi ko Sénégal féete na fa nee na fa la jàngee ba am fa kon yéen waa Côte am ngeen cant bu baax a baax léegi loo ko sëñam di faal Modou Mbenda wax waaye moom li ko ñor sëñ ma Njaay yaa mbooloo mi nga àndal bu leen tàyyi mukk sëñ Ibrahima Mbeng yaa mbooloo mi nga àndal ak waa waa takkuwaat leen bu baax te xam ni seen bëgg li seen bëgg yéen a ci ni ko sëñ Baara waxe fédération bi daa war a gën a yaatu li Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall njaboote ak ñi ko soob dëkk boo dem fekk ko fa fu ñaar nekk waruñu liggéeyal Cheikh Rew kon nañ ci góorgóorlu ñi ngi sant bu baax liggéey bi dañoo ñor suba fee ma nekk ci croisement Ngoundiane fédération Mame Cheikh Rew fa nekk yëpp sama kër lañu war a yéen suba mbooloo ma war faa daje fii may wax ak yéen ña baas di waajal bis ba ma war koo ànd ak ñoom sëñ ba Fay woo ma ñi ngi waaj ma ne ko xanaa ajuma mu nu ma fukki fan yi na daan ko def bis bi ñu jàpp ko fukki fan ak benn ma dem ba xam ni lee man lañ koy defal lii maam Cheikh sa maam lañ koy defal moo ma ko def loo ma bàyyi loola nekk ak yéen ba noppi soog a dem foofu loolu daal mooy yitte yi ngeen góorgóorlu tënkuwaat ci ndigal jëf ju mën a doon ndigal rek la may àndal ñu mën cee jariñu ndigalu maam Cheikh bu ngeen àggee na ngeen booloo képp ku fa ne liggéeyal seerafaal ak noo bokkee seera ñu ànd ak liggéey bi su bëree liggéeyul boo xam la defal seerafaal li mu ngeen ànd loolu maa ngi ciy soñ ñëpp wax ji moom dañ koy gàttal rek li ma ta wax lépp lépp gaay yi wax nañ ko nee na jigéen ñi soxna maam Bigué yéen a mën góor ñi wax naa ko fii daaw dama koy waxaat ren soo demee kër sëñ Fallou liggéey ba ñoo ca mën liggéey bi sëñ Tuubaa bii ñoo ca man damay wax ni ba lislaam sosoo ba léegi jigéen a ca man ci yent bi la ngay tàmbale sunu maam Cheikh bi mu ñëwee ndar jigéen njëkk a jaayanteeg moom na ngeen góorgóorlu seenub cëra liggéeyub Seera Faal bi yàlla na yokk te jëm kanam jërëjëf muy kër Serif Assane muy kër sëñ Mor Talla muy kër sëñ Aliou Fall Mbawor muy kër sëñ sëñ Abdou Sakkoor ba ci Cheikh Imaam Seraan Fall ya fa ne buntu kër yëpp ña fa te xam nañ leen sëñ Amdi Fall moo du mel ne moo joxe ndigal képp ku aju ci kër Seera Fall la ko dalee kër sëñ Fallou Fall mii taawu Seera Fall ba ci kër soxna Oumy jox na ndigal sëñ jiili nga jokkoog sëñ manjaay te tàbbi ci daayira ba loolu mooy li ko neex loolu mooy li gën nee na képp ko ko def am nga ngërëmu sëñ Tuubaa am nga ngërëmu Serapal kon nañ tàllal loxo yi te dugal ci aajo yëpp fasaaleel bàyyi dem ma fay ak murid yi ñëwul yëpp rek suñu borom defal leen tawfeex nee neena sëñ bi day sàkku murid yëpp ñu maase ñaan suñ tele bii mu doon tele bu mag ndax télé bu Serapal la nee na dong bii Xaadim Madina di alalu Cheikh bi ànd ak sëñ Mbaye Seck fu ñu wooteel Cheikh Fall mu fekk ko fa gàmmu kees ak lépp mi ngi koy yaatal kon ñu ngi ñaan télévision bi na si ñëpp abonné te tey partagé 24 ak sëñ mbay yàlla suñu borom yokku la at mu ne nu ànd ko ci barke suñu Tuubaa doole maam Cheikh na ñëpp dugal aajo yi ñaanal sëñ am di Fall Modou Mbène suñu borom yàggal yàggal fi jëriñu Cheikh mun Mountakha ak mboolem njabootu Cheikh Fall jërë ngeen jëf